tay euh, kurel gi teunk gi ëmb association yep euh yi nek ci presse bi dañ fi tew euh ngir euh, soutenir suñu confrères yi nga xam ñoo nek journal Les Échos ak journal en ligne mi xamné moy jotay et ñaawlu aussi li nga xam te ne fi jot am demb muy ay nit ay samba boy yo xamné xamuñ fuñu joggé ñew yàqate lépp lu fi nekkoon ci matériel bu ñu doon liggéeyee ba tey jamono ji tey boo duggee ci biir rédaction bi nga dugg ci salle de montage bi amatul benn machine boo xam ne mën nañ ko jëfandikoo pour génne journal et loolu noonu dañ yaakaaroon ne xewwi na dootul amati ci Sénégal waaye malheureusement gis nañ fi kat ay nit ñoo xam te ne dañ xamuñu ku leen ngemb ñëw ñu def ka ba tax na kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci association ñoo nekk ci presse bi yëpp muy coordination des associations de presse dañuy ñaan nguur gi euh, ñu am taxawaay gu mat pour sécurité euh, journalistes yi e lool it mu def ko farata ba nga xamante ne euh, këru yëglekaay yi kenn dootul xalaatati ëllëg di fa yónni ay samba ñu ñëw di yàq wala di gaañ nit wala di xoqatal ay nit ndaxte li fi xew démb lu jar ñaawlu la et wax dëgg fa yàlla nekk na loo xam te ne euh, mënuñu ko natt ba tax na nag ñi ngi ñaan aussi gouvernement bi euh, pour sécurité pour mën a gën a mën a sécuriser profession bi li nga xam ne moo jotoon nañ ko naal ba pare mu jëm ci code la presse bi muy texte réglementaire bi ñu dimbali ñu ñu def li nga xam ne moo ci war euh, ba nga xam te ne code bi nañ ko mën a jëmmal it ñi ngi ñaan aussi corporation bi képp koo xam défenseur des libertés nga nga jóg nga fi jamono attaquer journalistes di attaquer organes de presse di attaquer en tout cas des symboles de la République parce que lépp luy important, xibaar maanaam vitrine démocratie la ba tax dañ protéger et donc ñi